Surtout tukki nemmeeku bi mu doon amal fii si kaso bu Saint-Louis secrétaire d'État auprès du ministère de la justice qui dit :« di Mamadou Saliou Sow Rafet rafetlu bu baax si condition yi nga xamante mom moom la fekk ñi nga xamante ne ñoom la ñu teg loxo fii si kaso bu Saint-Louis. li ma doon ak lu am beaucoup. parce que bu ma ñëwee fii bu visité prison bi ah vraiment euh, néew pas content, kontaan mais dama def ma rassuré nga xam ne ñii ñu ngi def a yu baax te vraiment gis dafa am complicité entre qui euh, euh, gardien de prison yi ak détenu yi euh, c'est comme une famille. li ni mel nak wouté lol ak li nga xamanténi mom mo nek gis-gisu parents détenus yi nga xamanténi fekk nañ leen fi ci buntu kaso bu Saint-Louis ci reportage bi nga xamanténi mom lañ fi doon amal nak donté sax ñu bëri si ñoom. nanguñu addu ci suñu kanamu caméra. waye ñom lu ñuy ñaawlu rek mom mo nek condition yu metti yi nga xamanténi ñom la seen mbokk yi nekké ci biir kaso bu Saint-Louis.

ñun daf ñuy metti ba bu ñu fiy jógee sax ay jooy la génne daal ñàkk toppatoo bu baax bi ñu nekkee foofu ak bu ñu bëggee sangu di eh, kii problème yi nii am lekk bi aussi yooyu daal lan ñuy jooytu mais ñun bu ñu fi ñëwee daal ba ñu ñuy dem naqar lañ fiy jëlee daal ñoom parents détenus yi nag sàkku si nguurug Sénégal mu xoolaat bu baax a baax nekkin yi si biir kaso yi si biir réew mi ku fi ñëw daal ñu war a génnee say dossier juge la nga war a xam foo nekk foo tollu daal loolu daal moom war nañ ci bàyyi xel bu baax ministre bi war nañ ci taxaw bu baax a baax bu ñu sañoon daal ñu améliorer affaire yi defar ko bu mu baax ba ñoom bu ñu fi nekkee duñ fi am benn problème secrétaire d'État auprès du ministère de la justice kii di Mamadou Saliou Sow nag di xamle ne dinañ soppiwaat code pénal bi ngir des désengorger li nga xamante ne moom moo nekk kaso yi si biir réew mi